yàlla bu baax 100 pour cent boo nekkul gëm yàlla 100 pour cent rek doo jullit yàlla ku nekk a sa wërsëg man ma daan bëri chaque saison bëri naa benn saison quatre combats calaf bi jël ko tekka na la yow mais dañoo toog lu yàgg liiru Malick Niang sax déggatuñ ko dañuy dégg ñuy wax ay combat mais dañuy dégg combat Malick Niang mbëri ay daw voilà waaw léeg-léeg moom mbëri dañ jël mais ay 3 jours 4 jours rek lay am rek mu yàqu waaw mais loolu moom sama wërsëg laa yaakaar ne moo si nekkul rek quoi kon ñu ngi sa combat bu baax kay ah. ak kan jeex na dootuñu sax. mais Malick Niang am na ku mu bëgg ci làmb ji. ñëpp laa bëgg a bëreel tey jii gis làmb ji ko demee yi ñi ngi may xale yi seen chance ñu nekk ci kaw mag ñi ñi ngi may xale yi seen chance maanaam noonu lañ ko mën a waxee mais Malick Niang ñu ko dégg ci ñi nga xamante ñoo may war a may chance war a loolu xam naa xëy na man seen yaram dina daw xëy na ñëw buñ déggee seen yaram dina daw ñu may ma waaw kat kat si mag yi mag kat nga ci soxla si ñeme adversaire loolu nga may wax man. la dëgër de. waaw non fi mu toll ci la. non ba li nga wax. ba li nga wax saa waay man après bu mais ñi nga xamante ni tey jii. ñoo jëm ci mag pourquoi pas ñooñu. ñu jëm ñaax waaw moom moo bëgg a dugg foofu si biir si biir mag ñi rek mais moom xam na ni ñu ñooy ay boromam lañ li ma def sax defu ko. mooy ñaax moo bëgg a roof ko ba mu foofu forcé rek may nañ ko chance mu ngi sekk xam nga ñëw bëre man mi. yaa ngi koy bu baax dañ ko may chance bëree eh, mu échec nga ñëw bëree man. loolu nga koy wax wala moom kii ka may chance mu may ma chance man ma xool ba ku koy C'est chance ki ka may ko may waaw may ma man ma xool ba xam. Lac de Guiers waaw. ah. kon yaag booy ñaar mën Non, wax ni gars yi C'est nañu ni làmb la. loolu combat boobu moom Non, moo dàq C'est ñu fekk ñu tey. ñu fekk la ci nga xamante ne nii mooy. boole euh, seen waaw écurie Yoff ñu def ko ci 2019. waaw ban ci ko sax mais ba suñu lamb seen koñ buñ ko def am na écurie bu fa ne su doon da koy jox fu mu jegeñ rek su ko koñ boobu ko liggéey te suñu lamb tamit nekk euh, loo xamante ni day dund si lamb mais mu ngi koy dund ñu teg fii bu dee cent lañ ko jëndee sax ko neex si xol quoi ñu suñu kilifa yi ñu am suñu frère yoo gis ñoom ñi suñu gendarme mooy doon ñoom suñu imam suñu sa liggéey suñu yaa ngi dégg you ñu teg ci place bi ñëw place su cosaan la ñëpp ñu ñëw ah, lii dafa neex quoi dafa neex trop mooy leen mooy leen dina laale sama xol dafa tooy billaay walaay mais xanaa bientôt la gis ci làmb ji gisaat la ci làmb ji. man kay maa ngi ci làmb ji da nga naan man kay yàlla adversaire. adversaire waaw gars daw daal. waaw non dawuñu sax xam naa sama wërsëg xaw a kii rek. waaw mais booy ñaa daal jàpp nga ni combat gu war a mën a leer la. loolu war a mën a nekk loolu dafa a mën a nekk la mën a nekk la. ma nga noonu moom Malick Niang nee moog booy booy Niang làmb ju neex la kon gars yi naa ñu xool bu baax a baax a baax yéen a jugé mag mag may ne la chance nga échec yi nga bàyyi bëgg la yomba yéen a ngi dégg du wax waxuy Malick Niang la maa ko wax waxoo ko ma nga wax la ma nga noonu kon waxam ne nañ nga chance mu échec mu ñëw bëreex gone yi moo gën si moom muy yóotu ji sa kaw ma nga noonu kon nangu lool ak ah, Mamadou Lamine Samba. moo lu ma waxoon lu ma wax wax kii bàyyam lu ma wax rek pare na. keroog ba fan lay bàyyee ni bëri booy ñaar bi bu baax a baax. maa ngi lay sant bu wér jaajëf moo ma yëpp.